maaleykum salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna euh, man dama am njàqare ak tiis ak euh, métit xol dëgg ci li xew Sénégal ay détails ci li ñu tuumaal dëgg la ak bu dëgg Ousmane Sonko damaa foog ne ñun waa Sénégal ñun ñun war nañoo dépassé niveau bi ñu toll nii ci ci ci ci tardement maanaam àdduna day dox. dama ne même bu fekkee Ousmane Sonko li ñu koy tuumal dëgg la daa dem massage mais moom nit la massage mooy lan parce que am na ñaari jabar ibaadu la warul dem maase ko mais professionnel bu dee bu fekkee ne même bu fekkee ne dañee ñi ko doon nekkuñu ay professionnel mais nit la dafa war a maase yaramam bu fekkee ne dafa sentir ne yaramam day metti te dafa dafa niir massage dañ ko war a maase

et désir comme ni ko ñëpp amé du Sall lañ koy xëna waxul ko koy Sall nekkul mo koy pourtant dañ koy est-ce que loolu da tax ñu ñu war ñu perdre suñu temps ci ay détails yi nañu nañu liggéey Sénégal lañu liggéey nañu bàyyi détails yu ñu nekk nañu bàyyi loo ne ñu ñu 70 nit ñi amuñu liggéey taxawal rek lañu nekkee ak ak détail ko wax mu ne la ay ay ay entrepreneur la ko wax mu ne la euh, ah, ñu ngi waxoon sax businessman la dóor rek xam nga di ñak sonal di ñu sonal amuñu jot ci dara am nañ jot nit ñi di wax rek suba ngor journaliste yi des soi-disant journalistes di indi ay détails di tàddal nit ñi loolu amul sens nañ leen liggéey bo leen bëgg avancer da ngeen di liggéey dëkk bi mi ngi ni di nees yaa ngi gis ah balaa suba ginnaaw suba nga gis lépp deñ parce que nekk ñu du caaxaan dañuy dañuy liggéey xam nga mais ñun Sénégal dañu am jot balaa maa dee ñu naan balaa maa dee ñu naan ay ay ay pays teranga pays mais mais mais toroxal nit lañ ngeen dëkkee man ànduma ak Ousmane Sonko ànduma ak Macky Sall ànduma ak kenn man sénégalais laa àndal Sénégal la àndal xam nga ànduma ak sénégalais Sénégal la àndal na avancé mais du du du ci du ci ni ngeen koy defee nii la moy ndayu ay Ousmane Sonko dafa dem ñukay mars ngeen di bëgg a tarrel presque une semaine ngeen ci ngeen di bëgg ci tarrel di ñu sonal ah dañ ko yobbu fi dañ ko dañ ko dañ koy dañ koy dañ ko convoquer mais yow rew mo xamne yow da nga da nga jël ay carte ciaga ah ay ciaga nga jox ne ay carte ne mën nañ ciagatu wax asama la nak ko xamne ne dafa ne moom mën na massa dafa bëgg a massé mën na massa de euh, dafa dafa bëgg a def dafa def professionnalisme dafa dafa wolé profession ngeen ne loolu ngeen ne lolou ngeen ne loolu dafa ay ah xanaa Sénégal rek la ay loolu nit taxaw ne ne day maase ngeen ne dafa ay masseuse la ngeen ne dafa ay loolu xanaa Sénégal rek la am ñaata nit ñaata boss ñaata ay ay ay ay homme d'affaires ay ay personnalité maase ay sëriñ ay nit di leen maase kenn waxul c'est parce que Ousmane Sonko la rek gars yi foog ñu tij seen làmmiñ ñi di wax man ànd ma ak Ousmane Sonko ñëpp am nañ ne man sama xarit yi ma xam ñu xam nañ ne musuma ànd ak Ousmane Sonko te ànduma ak Ousmane Sonko mais am loo xam ne. détail la day yàq Sénégal ki bu fekkee né de bëgg na présenter au président de la république Sénégal nañ ko bayyi mu présenter wu dans les règles de l'art té ñu bañ ko tuumaal ci lo xam même bu fekkee dëgg la mo tay man suma ma sentiree taxaw bu limay may liggéey damaa bëgg a maase damay dem ñu massé ba ma nekk normal xam nga et après jeex ku ci nekk ci yeen mu ngeen ko def loolu moy problème bi loolu moy problème bi ngeen ñuy sonal ay ay ay non mais mais mais lépp nag Macky Sall la lepp Macky Sall la ak ñi andal ñoo jima xol xool buñ buñ jima bu ni nit ki jéem koo faagaagal te waxoon na leen ko ci sama sama prévention yu ñëk sama ki yu ñëk yi intervention yu ñëk yi newoon na leen ne Sonko bu may tudd deux 24 vingt du présenté wu te nek président dinañ fex luñu mën le communisme lañuy jima jéem instauré au Sénégal Macky Sall parti communiste lay instauré Sénégal képp koo xam ne yaa ngi jug te bokkoo ci ñoom dinañ la fexel utal lay pexe mais bii du bii du yegg parce que parce que même bu fekkee ne soo Sonko dem na ñu ko egg na ci ndaw si ndaw si majeur na moo tay xam nga même bu fekkee am na laa wax de ah du mujj fenn xam nga parce que parce que lan lañ seq ba ba Ousmane Sonko di egg ci moom du ma ne du ma du ma ko dëggal ndax man wóoruma mais dama ne détails yi ngeen ñuy tarel li ñu sonal mais leen ñu jàmm. Sénégal may leen ñu jàmm dangeen liggéey am ngeen jot trop trop trop trop trop ah jéem leen avancé wax ngeen liggéey non non waay li li du jàmm.